بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم يلا ممك ممم وحنا دق وبلغ رسوله نبي المصطفى الكريم يننتم بمتعند سيدنا محمد مم جطلنا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ñi yàlla borom waxoon seede nañ ko moom mi moo ñu bind moo ni wërsëgal nangu bi yàlla nanguñu kaamil bi doon jàng wa tajawaz ma kaana fi tilaawat min shawin aw nisyan lépp lu ci njuumte bi nu koy jàng yal nañ ko yàlla jéggal lépp lu nu ci fàtte yal nañ ko yàlla jéggal أضحي كلمة عن موضعها تحرير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. jàng yal nañ ko yàlla jéggal bu nu jiitalee lu ñu warul woon jiital yal nañ ko yàlla dégg jéggal buñ ci dollee lu ci bokkul woon yal nañ ko yàlla jéggal bu nu ci wàññee lu ci bokkoon yal nañ ko yàlla jéggal aw tawilin la xayri ma anzaltahu firee nu ko yàlla buur bi wàcceewul yal nañ ko yàlla jéggal aw raybin aw shakkin aw taajilin inda tilawati bu ñu sikki sàkka bi nu koy jàng yal nañ ko yàlla jéggal bu gaawee gaaw gu ëpp yal nañ ko yàlla jéggal aw kasalin aw suratin aw sayqin lisaan bu nu taayelee bi nu koy jàng yal nañ ko yàlla jéggal bu nu gaawee gaaw gu ëpp yal nañ ko yàlla jéggal bu sunu la man jàngee wax lu dul noonu yal nañ ko yàlla jéggal aw quufin bi xayri waqin bu nu taxawee fu nu warul woon taxaw yal nañ ko yàlla jéggal aw idgaamin bi ay mu amin bu ñu jokkalee lu ñu warul woon jokkale yal nañ ko yàlla jéggal aw izhaarin bi xayri lu ñu warul woon feeñal nañ ko yàlla jéggal aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jasmin aw i'raabin bi xayri makaan bu ñu li'raabee lu ñu warul i'raab yal nañ ko yàlla jéggal bu ñu dugalee hamza fu mu warul woon dugal ko yàlla jéggal bu ñu tegee sadda fu ñu ko warul woon nañ ko yàlla jéggal faktubu minna ala at-tamaami wal kamaali wal muhazzab min yal na yàlla defal ñu alquran ju mat yal na yàlla defal alquran ju ñu sellal yal na yàlla defal alquran ju mucc ci yàq yal na yàlla defal alquran ju ñu nangu faghfir lana ya rabbana ya sayyidana la tu'akhizna ya mawlana yal na yàlla jéggal ñu yal na yàlla jéggal suñu mboole mi rëcc rëcc ya mawlana warzuqna fadla man qara'ahu mu'addiyan haqqahu ma'al a'daa'i wal qalbi wal lisaan yal na yàlla wërsëgal ñu alquran di doon jàng yal na sax ci suñuy xol يوم يلا يا لوم لكم سني لامن وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان يلا يا دفن نيجي يو يلا يا ما نيجي تحه يلا يا ما نيجي مبكت يلا يا ما نيجي سكرتة نين جان بوكال جتا يتنو جيتو يلا يا دفن لين تيو يلا يا ما لين تحه يلا يا دفن لين مبكت يلا يا دفن لين سكرتة ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان يلا يا مسل نيجي مجوك أي يلا يا مسل ñi ci mujj texee di yal na yàlla musal ñi ci mujjug réer yal na yàlla musal ñi ci mujjug mbewte yal na yàlla musal ñi ci mujjug ay yal na yàlla musal ñi ci mujjug texee di yal na yàlla musal ñi ci mujjug réer yal na yàlla musal ci mujjug mbewte wa nabbina qabla al manaya an nawmi al ghaflati wal kasalan yal na yàlla yee ñu ci nelaw sàggan ak nelaw tayel balaa dee di ñëw yal na yàlla yee ci nelaw sàggan nelaw tayel balaa dee di ñëw wa minna min adabi al qabri wa min su'ali munkarin wa nakirin wa min akridi daan yal na yàlla musal leen ci mbugalum bàmmeel yal na yàlla musal ñu ëllëg ci mbugalum bàmmeel yal na yàlla leen ci laaj ak malaayika yal na yàlla musal ci laaj ak malaayika yal na yàlla leen ci sax yi lekk ci biir bàmmeel yal na yàlla musal ñu ci sax yi lekk ci biir bàmmeel wa bay wujuhana yawmal baas yal na yàlla leeral seeni xar kanam bu ñuy dekk di dajeeg moom yal na yàlla leeral suñuy xar kanam waati riqaabana min anniiraan yal na yàlla goreel ñu ci safara yal na yàlla ci safara wa yamin kitaabana yal na ñu jote sunu téere jëf ëllëg sunu loxo ndejoor wa yassir xisaabana yal na yàlla jàppandal seeni réglé yal na yàlla jàppandal sunuy réglé wa daqil miisaanana bil xasanaat yal na yàlla diisal seeni balance ak jëf ju yiw يا ديسال سني بلاس ak jëf jiw wa sabbit aqdamana ala sirat yana yàlla dëgëral seeni ndëgg bu ñuy jéggi sirat yana yàlla dëgëral sunuy ndëgg bu ñuy jéggi sirat wa xina bi wasatil jinaan yana yàlla dëkkal ñu ca digg aljana yéen yàlla dëkkal ñu ëllëg ca digg aljana warzuqnaa jiwaara sayyidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam yéen yàlla wërsëgal leen seen dëkkandoo nekk yonent yàlla muhammad yéen yàlla seen dëkkandoo nekk yonent yàlla muhammad wa akrimnaa bi liqaaika yaa dayaan yéen yàlla teral ñu keroog ñuy dajeeg moom moom mi nga xam ne mooy dayaan mooy fayaakoon bu mag bi allahumma stajib du'aanaa bi haqqi tawraati wal injiili wa sabuuri wal furqaan yéen yàlla nangul ñu kaamil bi noon jàng ci barke tawraat barke الإنجيل بركة الصبور بركة القرآن الكريم آتنا جميع ما سألناك به في سر وإعلان يلا لب lu la ñaan ci aw yiw moo xam lu nëbbu la wala lu feeñ yàlla ñu ko jox wa zidna min fadlika alwaasi bi juudika wa karamika ya rahimu ya rahman yàlla yàlla dolli ñu ci ngëneelam yu mag yi yàlla yàlla dolli ñu ci ngëneelam yu mag yi ak teraangaami allahumma salli ala sayyidina muhammadin sahibi sariati wal burhan ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam mooy borom شارع بي واي موي بروم لا يلاري برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم يلا يلا جريني في القران الكريم يلا يلا يكت سني درجه بارك القران الكريم وبارك لنا بالايات وذكر الحكيم يلا يلا باركل سني دوند يلا يلا باركل سني نجابور يلا يلا باركل سني مبير في بارك القران الكريم وتقبل منا انك انت السميع العليم يلا يلا نيو نانغول يوم nga xam yaay aji dégg yaay aji xam wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim yàlla yàlla nga nangu ñu tuubi yow mi nga xam ne yaay jéggale yaay nangu booleem tuubi allahumma zayyina bi zinatil quran yàlla yàlla taaral dund yi yàlla yàlla rafetal jikko yi ci barke karim wa akrimna bi karamatil quran yàlla yàlla defal ñu tedd nga ci barke teraanga yi alquran wa albisna bi qiraatil quran yàlla yàlla muur ñu ay maraani بركة القرآن الكريم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يلي على مسلني ci balaay yàlla yàlla musal mbugal ñu alaxira ci barke alquranul karim yàlla yàlla musal ñu ci balaay yàlla yàlla musal ñu ci mbugalum bàmmeel yàlla yàlla musal ñu ci mbugalum alaxira ci barke alquranul karim wa adkhilna aljannata ma alquran yàlla yàlla dugal ñu aljanna ëllëg ci barke alquranul karim warham jami' ummati sayyidina muhammadin bi haqqi alquran yàlla yàlla jéggal mboolem xeetu yonent bi yal na yàlla yërëm mboolem xeetu yonent bi ci barke alquranul karim allahumma ya alquran lana fi dunya qarina yal na yàlla defal ñu alquran mu nekk suñu àndandoo ci adduna wa fil qabri munisa bu ñu wéetee ëllëg ci biir bàmmeel yal na alquran nekk suñu wéttal wa fil qiyamati shafia yal na alquran ràmm ñu ëllëg taxawaay yawmal qiyam wa ala sirati yal na alquran nekk suñu lumière nuujil israr wa ilal jannati rafiqa yàlla na nekk suñu àndandoo ba aljanna wa baynana wa bayna naari sitran wa hijaba yàlla na xam dox suñu digganteeg safara yàlla na xam nekk baaraas suñu digganteeg safara wa ilal xayraati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramin yàlla na yàlla wommat ñu jëmaleñ ci mboolem yiw yi yàlla na xam nekk suñu tegtal yàlla na xam nekk suñu gidd orienté ñu jëmaleñ ci mboolem yiw yàlla yi ci barke alquranul karim allahumma adina bi hidayat alquran yàlla yàlla gindi ñu ci njub alquranul karim wa afina bi aynaati quran yal na yàlla jàmmal ñu ci barke alquranul karim wa najjina min an niiraan bi karamati alquran yal na yàlla musal ñu ci safara ci barke alquranul karim wa adxilna aljannata bi shafaati alquran yal na yàlla dugal ñu aljanna ci ramu alquran warfa darajatina bi fadilati alquran yal na yàkkati sunuy daraja ci barke ngëneeli alquran wa kaffir anna sayyiatina bi tilawati alquran yal na yàlla jéggal ñu sunu mboole mi ñaawteef ci barke alquranul karim yaa sal fadl wal ihsan yaay borom ay ngën يا برم الخطر يلا نجي دولي أكرم فطر اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة يلا يلا ورسقل بيب أعرف القرآن منك تحيني وبكل كلمة كرامة بيب باتو القرآن يلا يلا دفعني جتتنا وبكل آية سعادة بيب آية القرآن يلا يلا دفعني جتتحي وبكل سورة سلامة بيب صاروا القرآن يلا يلا دفعني جتجم وبكل jus jazaa bépp jus alquran yal na yàlla fay ñu ci aw yiw wa bi kulli xisbin xasana bépp xisbi alquran yal na yàlla ñu ci yiw wa bi kulli nisfi niamatan bépp nisfi alquran yal na yàlla ci xéewal wa bi kulli rubin rifa bépp rubi alquran yal na yàlla defal wa bi kulli alquran rafet allahumma suqna bil alifi ulfatan yal na yàlla tàppe xol yi ci barke alquranul karim wa bil baa'i barakatan yal na yàlla barkeel yëngutu yi ci barke baayi alquran wa bi taa'i tawbatan yal na yàlla nangu tuubi ci barke taa'i alquran wa min saai sawaba yal na yàlla defal ñu yiw yal na yàlla defal ñu yool ci barke saay alquran wa bil jimi jamalan yal na yàlla defal ñu taar yal na yàlla defal ñu taar ci barke jimi alquran wa bil xaadi xikmatan yal na yàlla may ñu xam-xamu xikma ci barke xaayi alquran wa bil qaai xilaanan yal na ñu xaritoog yàlla ci barke xaayi alquran wa bi daari dunuwan yal na yàlla jegeel ñu boppam ñu jege yàlla ci barke daayi alquran wa bi daa'i zakaan yal na yàlla defal ñu sell ci barke daayi alquran wa bi roi rahmatan yal na yàlla defal ñu yërmande ci barke daayi alquran wa bi daa'i dulfatan yal na yàlla defal tàppoo ak jàmmoo ci barke daayi alquran wa bi siini sanaan yal na yàlla may ñu tàggu rafet ci barke siini alquran seeni shifaa an yal yàlla saafara jàngoroy jàngoroy xol jàngoroy ruux jàngoroy yaram jàngoroy xel yal yàlla saafara ko ci barke seeni alquran wa bi soodi sidqan yal yàlla def ñu dëggu ak dëggal ci barke saadi alquran wa bi daadi diyaan yal na yàlla defal ñu leer ci barke daadi alquran wa bi daadi taharatan yal na yàlla laabal xol yi yal na yàlla laabal jikko yi ci barke daadi alquran wa bi daadi safaran yal na yàlla sàmmuñu ci tukki yi moo xam ci tali yi moo xam ci jaww yi yal na yàlla sàmmuñ ci mboolem tukki yi wa bil ayni ilman yal na yàlla yokk xam-xam yi ci barke ayni alquran wa bil ayni xinaan yal na yàlla defal ñu am koom ci barke ayni alquran wa bil faa ahad yal na yàlla may ñu texe ci barke faayi alquran wa bil xoofi xurbatan yal na yàlla defal ñu jege ko ci barke xoofi alquran wa bil kaafi kifayatan yal na defal ñu kaaraange ci barke kaafi alquran wa bil laami lutfan yal na yàlla may ñu ñeewante ci barke laami alquran wa bil miimi mawizatan yal na ñu waaroo ci barke miimi alquranul karim wa bil nuuri nuura yal na yàlla defal ñu leer ci barke nuuri alquran wa bil waali wuslatan yal na yàlla may ñu jokkoo ak jokkale ci barke nekk waaru alquran wa bil haa'i hidayatan yal na yàlla gindi ñu yal na yàlla jubal ñu ci barke haa'i alquran wa bil laami lii fi liqaan yal na yàlla defal ñu tedd nga ak texe keroog ñuy dajeeg moom wa bil yaa'i suran wa bil yaadi yusran yal na yàlla jàppandal suñuy mbir yal na yàlla jàppandal suñuy mbir ci àdduna yal na yàlla jàppandal suñuy mbir ci àllaaxira ci barke yaayi alquran yal na yàlla jàppandal mboolem jafe-jafe yi ci barke yaayi alquran wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tahirina ajmain allahuma balligh sawaba ma qara'nahu wa nuura ma talawnahu ila ruhi sayidina muhammadin alayhi salatu wassalam lépp ci sawab ak yool yal na yàlla sotti ko ci ruux yonente bi sallallahu alayhi wa sallam أرواح أصحابه ولأنصت جروح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين يلأنصت جروح ولم أنبياء الأولياء قايو يلي والمرسلين أبيونتي وإلى أرواح آبائنا الحاج باب داوكم بنان يلقوا نجل جبال القرآن الكريم day amee suñu yaay Maguette Ndiaye mboolem way daw li jullit yëpp yal na yàlla jotal leen ci alquranul karim ak képp koo xam ne yaa ngi daan bokka ji bokkoon ci mbooloo mi yal na yàlla jéggal la yal na yàlla jotal la ci alquran bi yal na yàlla barkeel sunu dund sunu baay Ahmed Diaw Touré yal na yàlla jéggal ko ak mboolem julit Haaj Moustapha Diak yal na yàlla jéggal ko képp koo xam ne yaa ngi woon ci mbooloo mi fa tabarakallahu yal na yàlla jéggal la ci barke alquranul karim yal na yàlla defal ñu Haaj Asfal yal na ko yàlla jéggal ci barke alquranul karim Seynabou Guèye yal na ko yàlla jégal ci barke alquranul karim barke guddi laylatul xadar wali arwaaxi abaina yal na sotti suñu mbokk bàyyi wa ummahatina ak suñuy yaay wa ixwanina ak suñuy mbokk wa asdiqaina ak suñuy xarit wa zaatisatina ak suñuy ustaaz wa mazaixina ak suñuy sëriñ xaasatan ñoom ñëpp wa ila arwaaxi jamii almuminina walmuminati yal na sotti ruuxu sax Sise ak mboolem way gëmi góori ak way gëmi jigéeni wal muslimina wal muslimat arabi ak jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi al ahyaai minhum wal amwaati ajmain amatan kuy dund ak ku génn àdduna yal na yàlla jotal la yoolu alquran wa ila jami ashaabil xayrati min al muminina wal muminat ak mboolem kuy def lu baax yal na yàlla jotal la ci alquran allahuma nsur man nasara diin yal na yàlla dimbali kuy dimbali diine waxzul man xasala almuslimin yal na yàlla gàccaal képp ku bëgg a gàccaal jullit ñi